alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokki jullit yi delsiwaat nañ ci sunu dars koor noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala jalla jalaaluhu azza kamaaluhu borom màgg gi yal na nu yàlla nangul nangul leen ni nu yàlla boole ci groupe yi yal na nu yàlla boole noonu ci aljana firdaws ñu àndak ak sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey mbokki jullit yi sunu dars mooy xamasaat li sabaab fi ramadan asara xamasaat lishabab fi ramadan mooy fukki tomb yu ñu war a dee ab jullit ñëw ba ci noppam daal ko koy dee ndànk ñaanal ko yàlla tabaraka wa yal na ko yàlla dimbali ba lii ñu ko dee mu mun koo dégg mën koo jëfe dee goo xam ne ki lay ku la bëgg la ay baat la yoo xam ne mala koy dee di la ko laaye biir ay baat yoo xam ne sopp la rekk ak bëgg la ak bëgg nga am ngërëmal yàlla ak bëgg yàlla kontaan ci yow tàbbal la aljanna yow sama mbokk jullit moo tax ma lay dee kàddu yi kàddu yoo xam ne bëgg naa mu dugg ci say nopp daal di tàbbi ci sa xol kàddu yoo xam ne bëgg naa nga nangu ko déggu ko jëfe ko déggu njëkk guma lay dee santal yàlla tabaraka wa bala yàlla mayee nga fekke weeru ko sant ko lu tax nga war ko sant yow sama doomu ndey yow sama mbokkum jullit lu war a tax nga sant yàlla xalaatal xoolal daaw waxtu wi ndax amoo ñoo xamoon nekk fi ak ñoom ci kaw suuf si ñu nekk say mbokk say xarit ñu la jege say am di jàmm say dëkkandoo nga xam leen tey ñooñu ananu ñoo nga ca keppaaru borom bi tabaraka wa taala ñoo nga ca àllaaxira ñoo nga ca bàmmeel ya tëdd yow tey yaa ngi fii yàlla bàyyi la fi ba nga fàkke ba nga fekkewaat weeru koor ren mbokk ndax lii war nga ci sant wala waroo cee sant dama lay laaj te bëgg naa nga tontu dafa ñoo fi nekk ndooloon yàlla jël leen bàyyi la fi loolu jar na sant wala jarta sant kon santal yàlla ci xéewal gim la defal boole la ci ñi ko jege boole la ci ñi koy topp ci weer wii boole la ci ñi nga xam ne ñu ngi góor góorlu di jéem a dajale ay tiyaaba ci weer wu tedd wii dee bu njëkk bi dee naa la ko ñaareelu dee bi mooy yow sama mbokkum jullit fexeel weeru koor gi nekk ci yow weeru yar weeru dégg weeru topp weeru jëfe yow sama mbokkum jullit fexeel nga sori mooy yàlla fexeel nga sori ci weer wi luy tax yàlla mere la mbokk meru yàlla xejul ci yow fexeel noo toroxale seytaan yuuxul ci kaw waxal mu leer au revoir seytaan seytaane bàyyi naa banaa la seytaane sori naa la seytaane maag yow dootunu làng yuuxul ci kaw leeral ko ba mu leer naññ ne ko au seytaan bégal yow sama mbokk jullit kontaanal takkal sa dënn dëgëral la say tànk ñaanal yàlla mu jubal la ci weer wi ñetteelu dee bu ma lay dee yow sama mbokkum jullit fexeel xur weeru koor nekk weeru quran ci yow maa ngi lay dénk bul bokk ñiy sàggan fexeel nga yër quran fexeel nga jege quran fexeel nga jàng al quran fexeel nga déglu quran fexeel nga dem fu ñuy tafsir quran fexeel ngay bànneexu ci al quran fexeel nga am loo jàng ci al quran maa ngi lay dénk téere yàlla bi xam ci dara yow mbokkum jullit ndax dina la dimbali ci say jaamu yàlla ñeenteelu dee bu ma lay dee fexeel bëccëgi weeru koor ci yow na nekk bëccëgi jaamu yàlla bu mu nekk ba bëccëgi nelaw ngalawaay bul def bëccëgu koor bëccëgi nelaw guddi koor guddi mooy yàlla fexeel bu la seytaane mën ba nga def bëccëgi koor bëccëgi nelaw guddi koor guddi mooy yàlla góorgóorlul xëral feesalal bëccëgu koor ci tudd yàlla ak jàng quran feesalal guddi koor ci taxaw dinaa fi la ak zikr di tudd yàlla góorgóorlul bëccëgi koor nekk bëccëgi tudd yàlla ak jàng alquran guddi koor guddi naa fi la ak tudd yàlla juróomeelu dee bu ma lay dee fexeel ngay joxe ci weer wi génneel ci sa alal dugalal sa loxo sa poos dimbalil say mbokk jullit ci sa alal bul ngott bul nay fexeel nga tebe ci say mbokk jullit yi xiif yi mar yi ñàkk ñaanal yàlla yàlla na la yàlla nangul sarax boobu bul nay musulul ci yàlla ci nay fexeel nga tabe nga ñaan yàlla tabaraka wa mu barkeelal la sa alal barkeelal la sa njaboot yéen ñi joxe seen alal ci yoonu yàlla barakallahu lakum fii ma anfaqtum wa fii ma amsaktum li ngeen joxe yal na ci yàlla def barke li ngeen téye yal na ko yàlla fulandi juróomi tomb yi laa leen suba incha allah mu des yeneen juróom maa ngi ñaan yàlla mu déggloo ma ko déggloo leen ko dugal ko sama xol dugal ko seen xol nangul nu nangul leen boole ñi ci aljanna firdaws ñu nag sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu naa leen ziyaare naa leen sàkku naa ci yéen ñaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.